qalbi lahu fi itaab al-jismi takraaru li'annahu lil-hudaa wan-nuuri jarraaru qalbi lahu fi itaab al-jismi takraaru li'annahu lil-hudaa wan-nuuri jarraaru auusu billahi min seytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa mawlaana muhammadin al-makiin wa ala aalihi wa sahbihi zawi ridwaan wa tamkiin bokki M-Media Group Nourou Darayni bokki taalibe yi bokki jullit yi noo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di ñaan suñu borom subhanahu wa taala defal ñu jàmm yi àddina ak àllaaxira ci barke Seexul Xadiim santaat yàlla bu baax a baax bi mu nu may ñu dikkaat ci bis bi fas yéene defar sunu émission jataayu jigéen ñi te muy yóbbalu jigéen ñi émission bii nga xam ne ñu ngi ko duppee zaadu nisaa il muslimaati linasihatil muminina wal muminaati doon jataay boo xam ne jataayub laayanti biir la ñu di amal fii ci kër gii di M Media Group Nourou Darayni mu mel ni fas nañ yéene dikkaat insha Allah euh, continuer yéen ci sunu tomb yi nga xam ne ci la nekkan nga xam ne ñoo ngeen ci euh, tamhiidu jataay bi jataay yi passé noo ngi doon wax jigéen laata lislaam di ñëw ci jamono jëkk ya ci arab yi naka lañu jàppe woon jigéen ñëw na itam bi nga xamee ni lislaam dikk na nan la jàppe jigéen wan wàccuwaay la teg jigéen ak lan mooy jigéen mu mel ni jataay bi nga xam ne ci lan jëm moom insha allahu taala mooy jataayu tey bii dañu fas yéene dikk ci euh, yemale gi nga xam ne lislaam yemal na ko góor ak jigéen ci wàllu jëf lu baax faye ku jëf lu baax ci jigéen ak ku jëf lu baax ci góor ak mbëgg mbugalum ku jëf safaanu lu baax ci góor ak ku jëf safaanu lu baax ci jigéen insha allahu taala foofu lan fas yéene joyal jataay bi tey ji ñu jëm fi jëm sonn suñu ni nga xam ne noonu lan waxe woon jigéen am solo goo xam ne noonu la ko amee solo ci biir société bi waaye noonu la ko amee solo ci biir dund gi nga xam ne day mottalante ak góor nga xam ne sax am na sax ñu dem ba ne euh, mënta ñàkk góor bu nekk rek boo xam ne bëgg ngaa am ab cër fi sa borom subhanahu wa taala du ñàkk nga am jigéen ju baax ju nekk sa wet nga xam ne ni ñenn ñi waxe ne al mar'atu mooy jigéen moom mooy wéeruwaayu jigéen bi maanaam mooy xer bi koy jar jar moom yaakaar naa ñi dégg wala xam nañ ko comme ni nga xame ne noonu la al al ummu jigéen moom mooy l'école bu njëkk al ummu madrasatul banina l'école bu njëkk nga xam ne moom ci ci la doom di jëkk a jaar ba su génnee rek euh, mën aw ci siraatal mustaqima mu neex a yar lool neex a jubal mooy jigéen jigéen mooy l'école boobu jëkk comme ni ko euh, shaari ba waxe woon al ummu madrasatun isa adataha adata shoban tayiba al aqraq mu mel ni jigéen dafa doon loo xam ne lu ama am solo la lu jara bàyyi xel la waaye lu jara eh, lu jara ittewoo la comme ni nga xam ne noonu la ko lislaam ittewoo comme ni bu waxee ni jigéen lekkool la saay boo ko waajalee rek bu jege man nga ne man nga ne waajal nga mboolem pinc mi képp ku jaar ci moom rek dana jag comme ni alquran waxee ci suuratul A'raaf walbaladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi isni rabbihi wallazi xabusa laa yaxruju illaa nakida kadalika nusarrifu laayaati li qawmin yashkuruun nga xam ne doom ju baax dëgg dëgg soo ko bëggee fàggu wala soo ko bëggee sabab lu fokk rek nga jaar ci jigéen ju baax ndax meññatkat saw jiwu nga soo ko amee bëgg bu saxee nekk naataange waaye nekk meññet moo xam ne mun mën a jariñoo lay doon mu neex a xool lay doon te it ànd ak euh, ànd ak ak teey lool nee na xool suuf su naat da ngay dem ci barab bu naat nga def fa sa meññet moomee bu sungum indee am ndoxam rek bu tawee bu gàncax gi génnee nekk gàncax gu naat lool waaye itam boo jëlee sa gànc boo jëlee sa sa jiwu nga def ci ko ko ci suuf soo xam ne suuf su bekkoor la ah tawee doonte dafa tam dafa taw ay waamee waamee tam mën naa bañ sax wala ba saxee gàncax ga du baax loolu mooy wal baladu tayyibu yaxruju nabatuhu bi isni rabbihi wallazi xabasu laa yaxruju illa nakida kon loolu am solo gu jigéen am solo eh, ci waajal ko Euh, loolu lay firndeel foofu mu mel ni jigéen moom euh, comme ni ko wax ci jotaay yi paase rek jigéen lu jara lu jara ittewoo la lu jara lu jara tànn la waaye lu jara yar la waaye lu jara segg la comme ni nga xam ne dafa nekk lekkool nga xam ne lekkool moom ku ci lekkool boo génnee rek la nga ci jàngee rek loolu ngay tari moo tax comme jigéen mooy lekkool bi ñuy jànge moom waras na koy mën a waajal waajtaay wu jekk wu yiw wa am solo woo xam ne képp ku ci génne ëllëg rek eh, des la jam ci benn côté loolu mooy li ñu doy digg digg digg jigéen ju baax kon sunu jataayu tey ginnaaw bi nga xamee ne noo ngi ci xiit bi ba léegi duggagun ci digg digg mawdu bi ak la ci aju jataay yi passé waxoon na laata lislaam bi ñëw jigéen na mu daan dunde ak eh, nen ko jàppe woon ak bi lislaam dikkee moom itam fi mu teg jigéen ak nem ko jàppe kon ba léegi tey dañuy woyal ci tamit tamhid bi diggante góor ak jigéen yemale gi nga xam ne moom leen suñ boobu yemale ci koo ci xam ne def na lu baax rek lala suñ boobu di fay ak koo ci xam ne def na safaan lu baax du caagin ne moom jigéen moom das koy suufeel ba nga xam ne ñoo ne lépp lu mu def rek baaxut wala lépp lu def ci lu baax itam des ko gis déedéet wala góor moom dafa kawe kawe goo xam ne lépp lu mu def rek lu baax la wala lépp lu def ci lu safaanu lu baax itam euh, des ko des ko des ko ko jàppe waxaa koy jigéen dana baax góor dana baax waxoon naa ke na alquran karim wax na ni diggante góor ñi ak jigéen ñi la nga xam ne moom la ñuy gënal moom la ñuy moom la ñuy euh, moom gënantee mooy ragal yàlla ku ci ëpp ak ragal yàlla rek kooku mooy ki fa suñu borom xam góor la wala jigéen la alquran wax na yaa ayyuha naasu inna xalaqnaakum min dakarin wa unse wa jacalnaakum shuuban wa xabaa'ila li tacaarafu inna akramakum cinda allahi atqaakum inna allaha alaykum xabiir kon nga gis ne diggante góor ak jigéen kon fi ñuy gënante mooy ragal yàlla ndax suñ ko wax ne euh, ma bind jigéen ñi ak góor ñi waaye ma def leen ñu nekk ay xeet yu wuute ay giir ak ay pooxol yu wuute ñi dañuy gàtt ñi njool ñi xees ñi ñuul ñi sew ñi ñi am yaram ñi nekk euh, euh, tukulóor ñi nekk séeréer ñi nekk pël ñi nekk Euh, manjaago ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaye loolu lépp lépp lépp am solo digg digg dëgg mooy ragal yàlla ga inna akramakum indallahi atqaakum ki gën a ñuul bu fekkee dafa dafa gën a ragal yàlla ku xees ki moo ko gën fuuf ki xees bu gënee ragal yàlla ku ñuul ki moo ko gën fuuf ki gàtt ki naka noonu ku njool ki naka noonu pël bi noonu séréer bi noonu tukulóor bi noonu njaago bi noonu kenn ku ci nekk daal la ngay gën sa morom mooy mooy nga mooy ak ragal yàlla is akramul ibadi inda allahi aktharukum taqwa bil istibah wala Seexul Xadim wax kon gënante ci diggante doomu aadama yi moom mi ngi nekk ci nga nekk dëgg-dëgg ab bu gëm am ak yàlla foofee la euh, gënante di nekk doomu aadama yëpp yëpp yëpp euh, ala xaddi sawa ni nga xam ne noonu la ko Sëriñ Tuubaa waxee annaasu min jihati tamsil akfaun abuhun aadama wa ummuhum hawa mu ne doomu adama yëpp boo leen doon misaal ñoom ñëpp rekk ñoo yem seen yaay mooy mooy mooy seen baay mooy aadama abuhum aadama wa ummuhum hawa kon dañuy gënante rekk digg digg du caagani diw moo ma jur waaye du jàggit ne askan sàngam laa bokk waaye la ñuy gënantee rek ak tharuhum taqwa képp ku la ëpp ak ragal rek kookee mooy ki la gën kon lislaam moom la teg jigéen ci eh, diggante gënante moom ak góor ak jigéen ak ba ci def lu baax wala def safaan lu baax loolu moo tax ma ne lislaam moom amut ab teqale ci diggante góor ak jigéen ci def loo xam ne dafa aju ci nga am ci ab yool wala wala aw yiw wala nga def loo xam ne dafa aju ci nga am ci bakkaar la yufarriqul islaam bayna rajuli wal mar'atu fi ma yataallaqu bil ajri wa thawaab ala alxiyaami aw bil iqaabi ala ala minha jusun ma amila loolu moom digg digg digg digg eh, yamale mënu ko passé comme ni nga xam ne noonu la ko alquran di tam nga xam ne day firndeel yemale googu eh, ci sóoratu eh, naxli man amila saalixan min dakarin aw unse wa huwa muminun fala nuxiyannahu xayaatan tayibatan wala najziyannahum ajrahum bi axsani ma kaanu yacmaluun suñu moom dafa wax ne képp koo xam ne jëf na lu baax ci góor ñi wala ci jigéen ñi te mu nekk ba mu koy def ak ngëm yàlla lar ko nee na koy def na ko ci fay ak fay gu teey def na ko ci fay fay gu rafet lool ñeel jëf ju rafet ji nga xam ne moom la jëf feddliwaat na ko itam ci suratul xaafiri man amila sayiatan fala yujza illa mithlaha ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بخير حساب képp koo xam ne danga jëf loo xam ne ñaawteef la ne des na la fay kem ñaawteef woowee waaye koo xam ne danga jëf lu yiw itam ci góor ñi ak ci jigéen ñi moo xam góor nga wala jigéen nga te mu nekk koo xam ne ku gëm la nee na ñooñee suñ borom dana leen dugal aljana dana leen wërsëgal dana leen wërsëgal ak dugg aljana ju ànd ak benn isaab kon loolu moom eh, al musawa bayna rajuli wa nisa loolu la firndeel foofu itam ba noonu mu leen yemalee ci def aw yiw wala wax ko noonu la leen yemale ci ki nga xam ne def dafa def bàkkaar dafa def bàkkaar eh, masalan ci atte bi nga xam ne daf indi ci njaaloo azaniyatu wa zani fajlidu kulla waxidin minhuma miata jaldin wala taxuskum bihima ra'fatun fi diinillah in in kuntum tu'minuuna billahi wal yawmil axir wal yashhadu azaabahuma taifatun minal mu'minin Euh, li ñuy tudde njaaloo xam nga jigéen nit ki ba amee borom kër ba pare njaaloo kooku moom dañ koy rey fekkee dafa am borom kër ba pare njaaloo wala mu am soxna ba pare njaaloo kooku ab atteem ci sariya mooy rey bu fekkee ne atteem sariya mooy dox waaye ki nga xam ne moom dafa njaaloo te amul borom kër wala mu njaaloo te amul soxna booba kooku duñ ko rey gis ne atte yooyu foofu ñoom la yemalee ñoom ji diggante góor ak jigéen ki nga xam ne dafa njaaloo moom te amul boru amul kër wala mu njaaloo te amul soxna kooku moom lislaam day digle ñu yar ko dañ koy dóor téeméer yar ngir yar ko loolu la wax ne euh, njaalookat bu góor bi ak njaalookat bu jigéen bi kenn ku ci nekk rek nan ko sànni téeméeri xeer kooku moom loolu mooy nekk ab yaram waaye amma bu fekkee ne ki nga xam ne dafa njaaloo ba pare nag mu doon koo xam ne ku am soxna la wala mu nekk ku am ku doon am bërëm nga gis ne atte boobu la andi ci diggante góor ak jigéen ba léegi ki nga xam ne dafa jël alali jàmbur wasaarixatu xatu wasaarixatu faqtau aydiyahuma jasaan bima kasaban nakaalan min allah wallahu azizun hakim góor ak jigéen képp ku ci sàcc alal jàmbur sàcc boo xam ne natt nañ ko ba xam ne lu lu lu jar lislaam teg la ab ateem xool ko ci côté yépp ba mat ko suba da ci war mooy dagg loxo moo xam góor la wala jigéen nga gis ne kon nam leen yemalee fee ca ka lu baax ak eh, ka jëf lu baax ca ak fayam noonu la leen yemalee fii ci ki nga xam ne dafa jëf safaanoor lu baax nga xam ne kon maanu moom ci lislaam ci lislaam la la dale tey ci la yem nga xam ne digg-digg bu noonu fekk ne lislaam day jàppe jigéen comme na ko ñu jëkk a man mën na ne jigéen moom saay bu defee bàkkaar moom la lépp lu mu def rek dañ koy jàppe bàkkaar comme koo xam ne demal na ba nga xam ne juddu jigéen sax jigéen judda rek dañ ko jàppe woon bàkkaar ah, wax moom moo doon lu doy waar loo xam ne misaal nan ko ci la alxuraan doon wax wa isal mawudatu su'ilat bi ay zanbin xutilat ki nga xam ne juddu jigéen dong jàppe woon nañ ko bàkkaar ba say bu juddu rek ñu naan lu koy faat wala ñu sàkkal ko ay pexe yu doye di war kooku moom du yemale sax ci wàllu àtte jigéen ak góor ci maandu ci jëf lu baax wala safaanab jëf lu baax woote ak ni ko lislaam indee ak ni ko lislaam jàppe mu mel ni kon xam naa tey foofu la ñuy taxawlu ci sunu jataayu tey insha allah taala mel ni jataayu tey bi lim ci doon jiima leeral rek mooy eh, al musawatu fi thawabi wal iqaab bayna rajuli wal mar'ati maandu gi nga xam ne lislaam maan na ko ci diggante góor ak jigéen ci wàllu àtte yi ki nga xam ne dafa jëf lu baax wala mu jëf safaan lu baax la ca suñ boom dikku góor ga moom la ci dikku jigéen ga bu de la nga xam ne mooy mbugal ma itam lam ci dikk góor ko moom ci dikk jigéen ka gis nga nga xam ne moo am ci njaaloo nga xam ne aji njaalo ji moom bu fekkee dafa sange moom am borom kër wala mu am soxna la ci lislaam àtte moo xam góor la wala jigéen ray moo ci àtte su fekkee nag dafa sange wut xañ na amul soxna wala amul borom kër la ci lislaam àtte mooy des na ko euh, euh, des na ko raj des na ko sànni ay xeer des na ko caw téeméer yar loolu mooy att eh, bi nga xam ne moom la lislaam indi foofu naka noonu eh, sàcc bi nga xam ne sàcc bu góor la ak sàcc bu jigéen bi itam kenn ko ci nekk na nga sàcc ñu ko xoolee ba nga xam ne atte bu lislaam man war naa tegu ci kaw atte bi leen lislaam di teg benn rek lay doon mooy dagg loxo ba misaagante ne kii góor la dañuy bàyyi kii jigéen dañuy bàyyi ba sàcc bu sàcc ci dagg loxo kii góor la dañuy bàyyi ba sàcc ñaar yoon wala ñett yoon ku góor ko ak ku jigéen ko ñoom ñëpp rek kenn ku ci nekk loo sàcc rek mu xool ba nga xam ne lii atteb lislaam war naa tegu ci sa kaw atte bi te mooy dagg sa loxo kon lislaam moom euh, maado digg digg digg mooy lislaam kon loolu la ñu bëgg a indi foofu tey jii euh, ci wallu sunu jotaay tey mel ni jotaay bi nañ ko waxoon ci commencement bu rek jataay bi dana wax ne ab yóbbal la ñeel soxna yi waaye ñeel mboolem jullit ñi loolu mu tax ñu ñu indi rek ak leeral ci lan mooy digg digg jigéen jigéen démb ak lan mooy jigéen tey ak lislaam naka la gise jigéen naka la jàppe góor ak jigéen ndax dëgg dëgg dañuy wax ne bu xam duggee xam dëgg dëgg mbir da ngay dellu ca cosaan li kulli shay'in ya'udu ala usuliha aw ala usulihi loolu moo taxoon ñu indi tamhid yooyu xam naa dañuy taxawal boobu insha allah taala ba beneen jotaay rek buñ dikkee continuer jotaay bi insha allah taala di ñaan suñu borom defal ñu ak digg ak ak topp ci barke alquran karim mar sef na asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh lil mustafa xayri xalqi laahi mansilatun law wajjahat nahwa kullu مسرعين لعوا والفضل عند رسول الله قرار